maintenant est-ce que de la famille libérale ba léegi am na sens am na fu mu amee sens am na fu mu amul sens parce que dañuy wax ne booloo mooy doole tous les libéraux bu ñu àndee gëm naa ni c'est une majorité au Sénégal suñu àndee. mais est-ce que ànd boobu mënati naa nekk est-ce que amati na sens. waaw moom laa dama ne am na fu mu am sens amul xam nga ñu ngi jëm à des vers des élections législatives yooyu jàpp naa ne libéro yi bu ñu ci àndee bu ñu ci àndee ni ci war a mën nañu am une majorité à l'Assemblée nationale maintenant loolu nag dafa nekk en en contradiction fondamentale ak man sama gis-gis man au plan politique sama gis au plan politique ci loolu mooy dama ko dañ ko junj léegi man la on aura de bi ma lay wax ne j'ai écrit au au premier ministre Ousmane Sonko le président parle des euh, comment il l'a appelé encore euh, rationalisation de la vie politique ou des mm-hmm. choses comme ça des partis politiques ma gëm ni ñun homme politique pour une fois war na am benn consensus bu mu war a mën a def am courage redorer le blason des partis politiques parce que réew mu toll ni Sénégal am fi 400 partis politiques ou plus. 371 jaaduwul amul sens. pour 18 millions d'habitants 18 millions. première mesure à prendre te moom laay proposer ci assises yi ñu jëm nii je l'ai écrit au premier ministre mooy il faut interdire les coalitions de partis pour les élections législatives parti bu nekk demalal sa bopp. parce que mënoo créer parti a fu ñu wax nga ni je suis chef de parti je chef de parti doo réunion doo congrès doo meeting doo dem élection ba pare bëgg a réclamer ay droits c' est en cela que ma d' accord woon ak Babacar Diagne. quand Babacar Diagne mais xanaa yow dañuy interdire sa parti kon. mais attends yow su ma mosul dem élection du tere man sur le principe. par di pour pour pour abandonner sa parti. mais attends du ko abandonner damay dem aux ah da nga je n'abandonne pas da nga dem législative. absolument dama ni la nañu interdire les coalitions de partie parti bu bëggul a dem élection ñu dissoudre la muy benn parti bu dem élection te mënu am benn député ñu dissoudre la muy ñaar bu ñu jëlee ñaari mesures yooyu ba pare état bi maintenant à partir de ce moment mën a financer les partis politiques parce qu'on en parle souvent mais ñu mën a trouver la solution yenn yi ci des mooy man je suis convaincu mooy sama gëm-gëm. que benn député bu député bu ñu fal sur la liste nationale ce député là ne représente pas réellement le peuple sénégalais député dañ koy fal à la base comme en France pour man benn nañu wàññi le nombre de députés ñaar nañu supprimer la liste nationale élire tous les députés au scrutin uninominal à deux tours loolu mooy tey bu ñu nee cent députés au Sénégal dañuy découper Sénégal cent zones par exemple ñu ne Médina Gueule Tapée benn député Ngor Yoff Ouakam benn député ainsi population yi fal comme ni ñu fale seen maire actuellement parce que aujourd'hui le maire est élu au suffrage universel direct de la même manière le député waxuma les députés le député ñu élire ko au suffrage